Euh, ak euh, li xew comme ni ko doyen waxee euh, fële ci Xosanto je crois bien que Kédougou dañuy fàttali que c'est une bombe sociale euh, par rapport ak paupérisation bi fa am si yenn diwaan yi waaye tamit niveau de pauvreté bi li fa nekk lié à l'exploitation de l'or or boo xam ne ay entreprises étrangères ñoo koy exploité daanaka ñun xamuñu or bi nu mel yow soxna nga amaana mosoo takk ab or ñu ne la bii oru oru Sabodala la suñuy bijoutier dañuy dem ba Dubaï di wuti or te ñun ñuy exploiter or depuis autant d'années amuñu sax comptoir boo xam ne danga nga am si wàllu or la euh, li nga xam ne moo xew Tomboronkoto la njëkkee ak euh, lañ doon def si exploration ay ay case lakk fa maanaam dëkkuwaay ñu jàpp fa fukki fukki fukki gune ak juróom daanaka médiation lañu doon def pour ñu baleen ñu wëlbatiku tomboro kot euh, ñu ngi koy waxatee xosantoo démb ñaari ndaw faatu ca bal lañ leen dóor depuis pratiquement trois ans lii faatu lépp ci ay manifestation Sénégal dafa jéggi dayoo il faut quand même qu'on ose la vérité te booba léegi déggoo ñu ne la ñii faatu jaasi la ñii faatu paaka la ñii faatu marto ñii faatu tënaay la toujours par bal ngay dégg par bal rek boobu léegi la ñuy dégg lu si bari bopp Burkina <coughs> euh, Gabon dafa ñu coup d'état def nga ko dégg nga fa moor coup d'état moo gën a jéggi dayo Niger def nañ fa coup d'état déggoo fa moor Burkina dañoo def coup d'état deux morts te defe naa ni coup d'état daanaka mbiru militaire la l'armée yi mooy génn ak ay ngànnaay euh, mbir ma je pense que ñun aussi il est temps que ñu que l'on puisse et nous poser certaines questions. Mm. mais que se passe t au Sénégal que se passe t au Sénégal à telle enseigne que li nga xam ni c'est consacré par la constitution maanaam le droit à la manifestation dëgg mm. la naam booy manifester i tamit xëy na am na foo xam ne waroo fa yegg maanaam franchir li nga xam ne mooy la ligne rouge mais dama ne maintien de l'ordre i tamit defe naa ni euh, il faut quand même que ku si nekk am foo xam ne fa nga mën a yem parce que état à travers ses de l'ordre moo yore li nga xam ni mooy la répression légitime la violence légitime répression légitime violence légitime itamit defe naa ni itam il faut quand même ñu xam lan ngay yóbbu su le terrain pour le maintien de l'ordre parce que bu ñu demee nga dégg Dakar ay bakkan rot na fi bal Ziguinchor ay bakkan rot na fa bal naa ay bakkan rot na fa bal euh, feneen ak feneen bakkan rot na fa bal ñu dem ba démb xosaantoo bakkan rot na fa ay bal def naa nag lu gën a lii gën a njëkk pour yooyu ñu fay bañ di yegg dañuy war ni saay bu amee ñu def enquête exhaustive pertinente et objective dénk ko ñu ñu ko war a dénk pour véritablement ñu def ci liggéey bu mucc ayib parce que yi tamit euh, ñi nekk gendarmerie ak ñi nekk police ñoom ñoo bokk ay mbokk lañu ay frère lañu ay sœur lañu ak ñi génn di manifester parce que nous sommes tous sénégalais yéena yéena yéena wax ci seen slogan télé qui se ressemble la télé qui mais li li li rassemble rassemblé wu kañ rassemblé wu. Ah donc tous les sénégalais se rassemblent donc tous les sénégalais doivent se rassembler hmm. donc ku si nekk rek boo tegee ñu def le maintien de l'ordre def naa loolu nag mais nag li nag il faut quand même que ñu jël si ay matukaay pour que véritablement mu yem fii. waaye tamit ñu xoolaat bu baax mbiru exploitation or bi ak l'emploi et l'employabilité des jeunes au niveau de Kédougou